fu iliyee la donc kooku dinaa bàyyi après moom bu développé ko <laughs> mais su ma ko waxee mooy ba ci àjjana yu gën a kawe yi hmm. donc loolu garantie la ñu ni benn Cheikhu Tijaani moom mu ñuy wax yonent bi dafa jël ay titres muy ñaari titres nag hmm. yoo xamante ni kenn amul toll noonu soo déggee Cheikhu Tijaani nii jël naa sama ñaari ndëggu tànk yi teg ko ci mbaggu déedéet ci ci ndodd bépp góor yàlla ba keroog ñuy wal buftu bi c'est pas ñaari tànk au sens étymologique du terme dafa am benn grade bu ñuy wooye xatmiya am benn grade bu ñuy wooye katmiya xatmiya mooy la mooy Maolana Cheikhu Tijani mooy l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et toute la création mooy maanaam tey koo mënti dégg ci kaw suuf rek ñun la walu yu la wala nit ku baax la du tudd nag ak bépp tarixa bu mu mënti yor ku mu mënti dégg su jullee jëmale ci yonente bi wala mu ñaan jëmale ci yonente bi ndax doo jëmale doo dem ci yàlla te mënoo jeeboo yonente bi ba ba am bu ci néeg te jaaroo ci bunt bi kenn mënul jot ci moom ci jaaroo ci sallallahu alayhi wa sallam te yonent boobu ku bëgg jot ci moom dafa am noo jote ci moom loo ko yóbbante yonente bi nga julli ci moom moo xam xasida nga jàng moo xam ak loo mënti jàng un un xasida mooy un poème à l'endroit du prophète boo ko jàngee ça n'arrive pas chez le prophète directement dafa am dafa am ku koy ku koy ku koy téye ci loxoom. leer boobu noonu li jëm ci yonent bi ça arrive chez quelqu'un comme ni ñuy wooyee le le le secrétaire wala le le directeur de cabinet xam nga tey mënuloo gis le président de la république sans passer par son directeur de cabinet. mënuloo gis un directeur d'une société sans jaar par son assistant wala directeur. Mawlana Cheikh Tidiane mooy téye bépp leer bu jëm ci yonent bi. xool segg li ko ci neex. mu jël jàllale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. macha allah yonent bi jël. bu fekkee moom dafa agréé delloo si ko pour mu delloo ci yow yonent bi jël joxaat Seexu Tijaan yiw bi mu xool li ko ci neex mu jàllale hmm. kooku c'est l'intermédiaire entre le prophète et toute la création hmm. loolu mooy benn grade kon hmm. appelle la xatmiya mu moom un deuxième grade nag bu ñuy woy la katmiya boobu nag ku nekkul ñu bëri dañ ko dingat ndax xamuñu ko katmiya boobu mooy nee na man maay l'intermédiaire entre les prophètes tous les et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc bépp yeneen sax laa la wax moo xam suñu maam Ibrahima moo xam Insa ku bëgg interagir avec le prophète Maulana Cheikh Tidiane yi ngay jot mu segg xool li ko ci neex bàyyi mu jàll su yeneen bi bëggee wax ak yow wala bëgg interagir mu jël xool jox la ko loolu mooy degré boobu macha allah kan nag mooy am jamono kooku woo la te Maulana Cheikh Tidiane bu mu ñu wooyee bu mu ñu ñëw waxuñu dama leen di ñaanal de xam nga da nga dem seeti Ahmed Tidiane yi mhm. waaye yëmu ci mooy fa innaha tariqatul anbiya yi min qabli cent vingt quatre mille prophètes yëpp Sidi Ahmed Tidiane moo leen jox yoon wee cosaanu mboole yoon yi nañu doy mook diine ñoo sosoo ca aadama ba tey ba aldunay jeex koo fi gis te muy ko mat yoon wee di yoonam muy jinne baa di nit tur wee di léegi waaye maanan yàgg na ku jaar weneen doo dégg mukk yegg na pée di bañ ku jaar weneen mu delloo looloo fa siiw cëg dëgg loolu la yàlla benn perab salaatul faatixi moo ëpp doole juróom benn junney kaamil benn perab salaatul faatee boo ko jàngee yàlla nangu ko ki jàng juróom benn junney kaamil yaa ko ëpp yool neex naa dégg jëru sa euh, compliqué. saamaam nee na. saamaam nee na. taalibe Cheikh Ahmad Tidiane. taalibe Cheikh Ahmad Tidiane. julli timis. julli timis. julli gée. julli gée. ñii ne ganaar. ñii di ginaar. mu dóor ba gàpp. mu dóor ba gàpp. kafe meew. kafe meew. mu naan. mu naan jaaxaan. jaaxaan. di nelaw di xandoor. di nelaw di xandoor. jaamu yàlla bi. jaamu yàlla bi. julli timis. julli timis. di julli. di julli. di werd. di werd. di julli. di julli. di werd. di werd. ba fajar. ba fajar. yàlla ni malaaka mi. nee yàlla ni malaaka mi. seetal ma waajee lu mu doon def nu mu toll seetal ma waajee lu mu doon def nu ni téeméeri junni day neew ni ah, wala juróom-ñeenti téeméer wala ci tuyaaba jot na koo def jot na koo def yàlla ni kon nag yàlla ni kon nag jóoral ko taaliba cheikh bay nelaw jóoral ko taaliba cheikh bay nelaw te jëf ci benn te jëf ci benn jox ko mu ñami bëtam jox sama am ni. nee sama am. lii ma wax ci wolof. lii ma wax ci wolof. mu ne waa amil aji jëf. waa amil aji jëf. lillaay ngir yàlla. lillaay ngir yàlla. ay amal gu mu ci jëf. ay amal gu mu ci jëf. moo xam julli la moo xam wedd la. moo xam julli la moo xam wedd la. wakkaan te nekk jëf jëf. wakkaan te nekk jëf jëf. max bool di lu ñu nangu. max max boolam di lu ñu nangu. mi ne tafadul ci gën a yàlla. mi ne tafadul ci gën a yàlla. yoo tayhim. dana jox leen ko. dana jox leen ko dul fadli. borom ngëneel la. borom ngëneel la. wala ihsaan. ak borom rafetal ko. ak borom rafetal ko. moom ñoom booba. moom ñoom booba. taaliba cheikh yi. ñoom taaliba. roxoodal. ña ngay xandoor. xër xër. xadaman ñaata ak sara loolu min ñaata dexin ci junniy ful maa utiyal aamilu ka doon jëlee ko woo dem nañ ko ñu dox ñamu bëtam taaliba cheikh jëlal di ko fekk si benn garab goo xam ni fa laa daan wér de ba treize heures jotee maanaam njolloor ma jëkki saa gis moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani mu wàcc ak mantoom bu rouge bi ci monde shahada laa wax de àdduna bi mu ngi ànd ak keroog Cheikh El Hadji Omar ni Cheikh El Hadji yaay sama seede désert bi kenn nekk fi ma wan ko ginnaaw mu ni ma Seydi Mohamed El Cheikh ma tourné gestu ko sama tànk ak sama ay loxo ñoo doon dox jëm ci moom Cheikh kenn xamu ko Cheikh nee na du woo nit cëram lay woo du woo nit cëram lay woo bi ma agsee mu ni ma tàllalaatal sa loxo kon mooy ñaareel ba xam nga lu tax mu ni tàllalaatal sa loxo joxoon na ma wérdu ba ca albast mu ni tàllalaatal sa loxo ma tàllal mu jàng fatiha jàng salaatul fatiha ni ma bis ni ki tey jox naa la pouvoiru tariqa bii di sama tariqa ku la ci neex jokkal ku la ci neex dogal sa salaatul fatiha amatul limite waaye ni ma tur bii di Seydi Mouhamed El Cheikh it man ak yonent bi ñoo ànd tuddee la kaaj yàlla te mooy sa tur kuy ñaan na ñaan ci sa tur bi loolu moo indi baatu Seydi Mouhamed El Cheikh bi ci gàttal waaye su ma jëlee sama relation boobu ma wax ndax côté wird bi rek laa doon nettali fu mu ne ndax wax naa lu lépp kenn mënu ko wax sama relation ak Mawlaa Cheikh Ahmadou Tijani Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijaani dafa décrété ca Albast def ma ma nekk premier xalifaam ci tarixa bi premier xalifaam ci tarixa bi ca Albast la ko décrété loolu moo indi baatu xuddul aqtaabul kabir bi ndax wax naa la ni gis nga bari na ku toog ni maay xalifa Mawlaa Cheikh Ahmadu Tijaani xalifa Mawlaa Cheikh Ahmadu Tijaani kenn du ko fale nii nit ñi dul la ko fal kenn du ko fal it sa bopp ñu la koy fal dañuy xuus ba ci leeru yàlla demande ko permission xam nga lu tax yàlla ay fondateur u tariqa bi soo demee ba basaatul jalal lumière bi su yàlla d'accordul nga nekk xalifa bi lumière bi daf lay rejeté nga dellu gannaaw su yàlla d'accord yee lumière bi daf lay tóog ba nga ba nga ba nga yéeg ba ci sommet bi nga gis trois cent vingt cinq bu zamaan yi ñoom ñëpp ñu àndandoo di tàccu ñu ne nommé nañ la xalifa Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani man de noonu la ma ko Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani nommé ci procédure boobu it la ñu jaar ba ma nekk ko di premier xalifaam ca albast bi ma ñëwee ci monde shahada ma taxawee neuvième xalifaam ci monde shahada neuvième xalifaam ci wàllu zahir waaye premier xalifaam ca albast nga xam ni ci woyof xam-xam moom lay tuddee baatil kon gis nga relation boobu parce que man degré spirituel bi ma toll li ma Mawlaa Cheikh ma Tijaani jox lu ma mënul mu ni lii sëñ Mouhamed El Cheikh mënu ko loolu amul xanaa kay lu ma def ak lu ma deful la ñuy wax lu ma def ak lu ma deful la ñuy wax waaye lu ma mënul ci degré spirituel boobu loolu amul yàlla jox ma kàddu kàddu bi ma gën neex ci li ma yàlla jox mooy secret kun fayakun bi ma jox nga xam ne tey ci monde shahada bii mu ne lu ma fi neex amal monde shahada bii mu ne lu ma fi neex amal Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani bi ma yàlla joxe secret kun fayakun bi ci la ñëw ni ma Seydi Mouhamed El Cheikh dénk naa la tariqa bi ci àdduna dénk la ko barsax waaw man kay cër bi ma am ci tariqa bi doy na ma sëkk Cheikh dafa ni ma dénk naa la tariqa bii ci àdduna bii mu ne dénk naa la ko yit barsax kuy joxe wérdu barzak man ngay laaj kuy eh, jokk wérdu ci lumière mu jëm xadaratul ilaahi ba ci monde shahada bi man ngay laaj loolu kenn mënu ko dindi xam nga ñu bari dañoo xamul dañ la daan wax eh, eh, téeméeri at yu nekk dina am ku yàlla yabal pour mu yeesal diine ji yonent bi waxoon na ko ci lu leer nañ ñi borom hadis yi xam nañ ko ci gàttal dama la bëgg wax ni la depuis 1983 depuis 1983 laa wax ba àdduna di tukki ci jamono yi nu toll ki nga xam ni mooy sauver humanité bi ki nga xam ni ci moom la nit ñi mën a jàpp pour sauver ci aaxiru zaman ki nga xam ni moom moo yore tariqa bi fii ci àdduna yore ka barzak man mii di Seydi Mouhamed El la maa ko waxte ànduna benn tiitar li ma Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani jox la il fallait ma wax ko su ma ko waxee ku bëgg jëriñu jëriñu ku mënul jëriñu toog waaye mu la fii mu toll nii man maay ki ñëw pour yeesal diini ji pour yore tariqa bi ci monde shahada ak barzak xaw ma ku bëggul dem xadaratul ilaahiya ba de waaye ku bëgg dem xadaratul ilaahiya ba faw nga jaar ci man mii ndax koo mënta jaar kooku dina jaar ci man laata ngay dem kon loolu lu leer nañu limite la looloo tax ndeysaan xut bu zamaan ba ma doon waxtaan ak moom ba yàgg ma ni ko yow ñitu xam-xam nga beneen bi mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani dafa ni ma yaa détenir sama malaan maanaam malaan bi nga xam ni su àdduna dee tukki moom laay wax nan ma ko lemal indil ma ko yow Seydi Mouhamed El Cheikh yaa ma koy indil beneen bi it mooy Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ni suñu taxawee yowmal xiyaam ëllëg xam nga yowmal xiyaam ëllëg suñu taxawee Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani min baru leer lan koy tabaxal mu taxaw ci mu jël kayit bi kayitu lan kayitu daayiratul imaan yi képp kuy taalibeem sa tur a ngi ca kayit boobu mu ni ma Seydi Mouhamed El Cheikh yow laay yow laay jox kayit bi nga liir nga liir tuuri ma yéeg ca kaw pëjëm ba pëjëm ba ñetti marche la taxaw ci wetu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani commencé di tudd tur ya gaañu di yéeg kenn par kenn ba taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani yi di jeex kooku fa la ngëneel yam Cheikh Tijaani defal na ma ngëneel barzakul maktoum bii di ajjanaam moo tax ma ni wëliw bu ma xamul nit ku ma xamul ci taalibe Mawlaa Cheikh Ahmada Tijaani ci monde shahada bi it boo demee ëllëg xam nga ma ndax barzaqul maktum di àjjana Mawlaa Cheikh Ahmada Tijaani bi muy dugal taalibe ni sama tur a nekk ci buntu ba di Seydi Mouhamed El Cheikh di étincelle Mawlaa Cheikh Ahmada Tijaani may ma ngëneel googu ni ma doo jur ku dul man du ma am doom ju dul waliyu mënul nekk mu ni ma taalibe bu la jege taalibe bu la jege nekk ak yow ca Medina Cheikh nekk wëliyu taalibe yi ma am yépp ay wëliyu lañu waaye gis nga sama digganteeg Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ndax kàddu gaa ngi bëgg gudd sax su ma doon wax ci ngëneel yi ma may du jeex am na jour boo xam ni jour vendredi la le 8 août 2014 vendredi 8 août 2014 boobu ñu ngi nekk ci biir wasifa timis fi ci dina Cheikh ci la Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ñëw ci wasifa bi ni ma may naa la benn siège ca basaatul jalaal en face buildingu yàlla buildingu allahu nuru samawati wal ardi vendredi 8 août 2014 bi ñu nekkee ci séance wasifa wasifa wasifa timis Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ñëw ni ma Seydi Mouhamed El Cheikh ma ni ko làbbayk mu ni ma may naa la benn siège boo xam ni ma nga nekk ca juróom-ñaareelu asamaan jàkkaarloo bildun allahu nuuru samawati wal ardi moo tax gis nga lii problème bi mooy ñu ñëw mën dem basaatul jalaal xutbu yu mag yi kese ñoo fu mën dem waaye gis nga tey ku dem basaatul jalaal ca bildunu lumière yàlla bay tourné soo toogee sa bildun sa wetu bildun ba di xool bildunu lumière yàlla nu muy tourné di seen beneen bildun bu weex buy tourné bildun boobu tour Seydi Mouhamed El Cheikh lañ ci bind Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane moo ko façonné tabax ko fa ci lumière ba noppi ñëw vendredi 8 août 2014 si ci wasifa bi may ma bildin boobu muy sama siège man am naa siège ca septième ciel moo tax euh, xalaat naa ni monde shahada bii ku ma ci jox cër ku ma ko ku ma ko ci dul joxeyam ndax ku am siège juróom-ñaareelu asamaan siège monde shahada bii du la jaaxal waaw waaye loolu yëpp lan la mooy pour wan leen ñii ñu am ñii ñu am cër bi ñu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani defal beneen cër bi mooy duma toog aljuma maanaam aljuma duma julli jumaa lu dul ci ginnaaw yonent bi yonent bi may na ma cër boobu te gis nga soo demee ca zawiya leer ga ca juróom benneelu asamaan fa yonente bi di toog ànd ak di dix mille cercle lu malaayika muy zikr jawharatul kamal muy siège am fa la ñuy jullee jumaa àjjuma gis jumaa jooju ca minbar ba yonent bi muy jiite wala Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani man maay sël xutbul axtaabul kabir bu yonent bi di ma jiital léeg-léeg àjjuma wala ma ñëw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani di ma jiital léeg-léeg àjjuma àjjuma ji paase rek yàggul moo ci mujj yonent bi li xaamal ma ni ma jiiteel ma jiite loolu yombul de cër boobu ku mu doyul foog naa ni cër buñ la mëntoon tuddalit doo ko gis beneen bi mooy Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani dafa ni ma yaa sama malaan ndax mbir mi dafa leer naññ lan la ñoo tuddee ndox muy daw ci biir ros na mu mel ci leeraay noonu la tariqa tijaaniya leer la la sant mooy jug fajar teel la ñu la sant julli julli suba tisbaar jot nga julli tàkkusaan timis gee def sa laazim def sa wasifa def sa xadaratul juma maandu sopp xalifa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif yëpp loolu lañ la sant lii de du dugal kenn ci benn loos lii àjjana la jëme nit waaw waaye bëggal kii bañal kële kële ko mu féete bokk leen fa nangam nangam kii dafay liggéeyal cheikh mais liggéeyul ke sa maam waxoon na ci moom nangam nga topp yooyu di dem moo lay dugal ci lëndëm ci mag ñi kenn ku ci nekk dafa liggéey ba sampu baasam tey soo dee taalibe cheikh Tijani Chérif dëgg te muy dëgg ci yow foo dem muy malaan war nga fa mën a toog wasi boo demee kër cheikh alhaaji Umar mën nga toog wasi boo demee kër Seydil Hadji Malick malaan ba yaatu na loolu mën nga togg boo demee kër Baye Niass de même boo demee ci cana ba cana ba yi de même kër Sëñ Abbas Sall de même xanaa du malaan ba nga gis ak Cheikh Tidiane leneen loo fa gis te yaa ko fa gis waaye nekk waaw tant que kay wasifa bi xanaa nga dem koo xam ne moom lañ naan bu ñu defee cent ñu ni ñoom deux cent la ñuy def wala istifaar fanweer ñu ni ñoom mille la ñuy def waaw kooku mën nga yaa jàngu ba ñëw waaye tant que la ngeen di def muy nombul UGT ñoo yam ca malaan bi ni ko Cheikh santaane foo toog mën waaye tey gis nga koo xam ni foog na ni fa mu bokk daal su dul foofu rek du feneen loolu mooy feebaru Sénégal loolu mooy feebaru Sénégal te da nga koy gis nag ci kër yëpp waaw am na ñoo xam ne boo waxee non man du ma aussi parti waaw que man bokk ma foofu boo waxee ñii non man Medina Baye du ma foofu ndax man bokk foofu mais xanaa da nga xamul fu tarixa bi duggee ci Afrique de l'Ouest ci Cheikh El Hadj Oumar la jaar kon balaa ngay bokk fenn kon mënoon nga dem wasifa ci Cheikh El Hadj Oumar parce que moo ko dugal ci Afrique waaw ah, ñu bari loolu la ñuy fàtte xamu tariqa bi Cheikh Al Hadji Oumar moo ko dugal fii ci Afrique de l'Ouest waaw kon moom moo ci gën a nekk de légitime ñi te ñoom ña ngay wasifa fële ña ngay wasifa beneen kër ña ngay wasifa fële waaw kon maanaam ñi benn li ci Cheikh Al Hadji Malick liggéey kenn liggéeyu ko boo demee à l'extérieur li ci Baye Niass liggéey ci tubaab yeeg ñeneen kenn liggéeyu ko ci boo ñëwee fii de ku ci nekk mi ngi liggéey te mag ñi lu leen ñoroon mooy yàll yonent bi Mawlaay Cheikh Ahmadou ci Sy moo